waa man euh, bokkoon naa ci parti politique président Macky Sall euh, APR laa laa nekkoon ndax sëñ Gallas Kaltoom moo ma fi indi woon des laa woon mais 2012 laa duggoon ci parti bi ba heure bi ah pour l'instant daal maa ngi toog tënk sama mbooloo daal ci benn côté parce que affaire bi dafa xaw a metti ci man ndax sama propre moyen bopp laay demee te wax dëgg yàlla nagam naa mënatumaa demee ak propre sama propre moyen bi bopp moroy bopp moyen bi daal maa ngi ci développement bi ak sama jigéen ñi waaw mënatumaa dem daal ak sama propre moyen bopp daal instant bi daal tënk naa sama mbooloo toog di dégloo waaw. loolu àggagun ci loolu ba tey mooy comme comme li nga ma laajoon sànq rek xam naa ci kanam daal lay doon mais instant bi mënu ma ci leeral. dama déclaré sama candidature waaw. Benno Bokk Yaakaar ci laa bëgg a demee. non duma ko ñi am naa droit nekk ci département bi war a pousser candidat euh, conseil département de Mbacké ma ci am droit pour def ko moom nag la nga xamante ne bii ne moom la bëgg wax ko am na droit wax ko ndax mooy président tout le Sénégal te moom la ñuy liggéey mais loolu après la mënuma ko expliquer léegi waaw mënumaa leeral moom bu tànnee daa comme si damay ànd ak kam tànn wala ànduma ak moom du lu may wax léegi mais am naa daal samay ambition yoo xam ne moom mi ngi man ma téye en principe. waaw parce que xam nga Babacar bëgg goo gis yëg da koy fay maa la bëgg maa la raw da koy fay te parti bi dama ci nekk léegi dafa yàgg 2012 ba léegi du benn fan. te parti bi ñi ñi may déglu nii tey bu ko déggee dinañ xam li ma servir parti bi transhumant laa d'accord yàgguma ci parti président Macky Sall mais servir na président Macky Sall dara bokk naa ci ñi ko falaat kon nag bu ma nekkee ci parti bi 2012 ba léegi di ànd samay nit ne leen président Macky mii la imposé leen ko mu neex leen mu naqari leen ñu ànd koog man Touba Lansar gépp danoo takku benn say fii benn parti amu fi maa fi nekk man la fi yàlla teg ma nekkaloon fi président Macky Sall di ko liggéeyal mais boobu ba léegi 2012 ba tey ñu ngi dem ak a ñëw te gisuñu suñu bopp ci parti bi te Touba Lansar du quartier bu ndaw te dañoo beddi Touba Lansar trop ci département de Mbacké gisuñ ci suñu bopp moo tax nag léegi ñu boog ma bëgg a tënk sama mbooloo ci wenn say toog di dégloo ndax daagu nag fan la nobee responsable yi fi nekk yëpp jotewuma ak ñoom dara te ñoom xam nañ ne man élément président Macky Sall laa woon bu sincère bu fidèle man président Macky Sall dama leen daan wax ne leen li ma koy liggéeyal su ngeen bëggee xam lu leen leer samp leen kees ci penc mi ngeen xam ne fii président Macky Sall moo ko moom loolu laa leen doon wax président Macky Sall Touba lim fi am boo ci génnee Touba Lansar ci ñu koy voteel lim fiy dese du bari ñun bu ko Touba gépp wareet sunu carte yi moom lañ ko doon sànnil bañ ànd ak moom 2012 ba tey te parti bi dañ ma beddi seet ma boycotté ma. te man ku ma xool tey xool samay élément xool samay jigéen xool samay jeunesse xam ne man duma ko ñuy beddi Touba Lansar du parti bu ndaw du du du quartier bu ndaw kon man duma ko ñuy beddi te ñoom amu ci kenn koo xamante ne benn leader bu mën a génn tey su ma paree nii wax ne maa def lii Touba Lansar du président Macky Sall lu mu fi def du ay leader am yi nekk ci dëkk bi lu ñu fi def kenn ku fi ñëw sama jigéen ñii lu ñu leen defal sama ngor laa ànd ñoom tey ci nag laa leen woo pour leeral leen ko ubbi seen bopp ndax ñu ngi gis may dama ko ñëw ci parti bi xam naa ñi ci gàtt xel dan may bàyyi ci biir jàpp ne damay lekk di leen bàyyi te ñoom joxuñu ma lu ma leen jox sama propre moyen bopp laa ànd ak ñoom ak sama ngor ci développement parce que ñoom tey dama leen a war a ndax man social dama cee judd ndax sama waajur da dafa yàgg ci social muy Serigne Bassirou Sarr jaam borom Touba ku ne xam na ko social kon doomam war naa nekk ni koo xam ne danga social man social ba ma amee 17 ans laa commencé di dimbali ay nit boobu mineur laa ñii kon dama leen a war a dimbali bu dul politique waaye nag dimbal boo gis dafay am topp boo gis day am fu mu yem kon dama lay topp fa ngeen jëm daa sori bu soree da ngay taxaw ànd na noog man ngir ngor ànd ak man ngir sama waajur waaye nag xel tamit dama ko war a am ndaxte ñoom ñii ànduñoo xëy na na noog man ngir yàlla waaye bëgg na noo gis seen ci réew mi te yàlla man lañ ci yaakaar te ma ne dafa am ci yaakaar ñi ma ci yaakaar nag buñ demee ba xam ne ñoom mënatuñ maa jàppale ci gox bi ñu gis seen bopp ci réew mi ni ko ñëpp gisee mi yëwoo nag ma dem toogi ne xaar waaw wax dëgg yàlla duma la ko na réccu naa ndax man askan wee ma tax a wàcc ci terrain bi di liggéey askan wii toog bëgg leen a dimbali ñu gis seen bopp ci réew mi ñu ko ñëpp gisee moo tax ma wàcc ci terrain bi di liggéey ndax xam naa ni may lijjanti ko ba ba ni may lijjantee sama bopp xam naa ko waaye nag sama bopp kese personnel taxuma di politique moo tax may politique parce na lu fi manqué loo xamante ne état war na ko fee def te defu ko wàllum éclairance bi nag da cee rawati lamp yi ñu yokk su màggal jotee ci Touba lan saar xaw ma kañ lañ ci gëj am gox baa ngi nii tali amu fi dara amu fi amul yoon poste santé dama ko yuuxu demandé ko ba sonn ba waa Touba ca kanam ñoo ko fi def ñuy sant Serigne Abibou Mbacke ak kuréelu kuréelu Touba ca kanam macha allah ci loolu ñu fi def. wàllu insécurité beeg yëpp rek yoon bi enclavé beeg yëpp rek amuñu ci lu ñu neex président Macky Sall jàppale ay nitam jàppale wuñu sëy bi tasagul dañoo mer sëy bi tasagul ma ne bi tasagul dañoo am lu ñu naqari dañoo ànd ak te ànd ak président Macky Sall dañoo war a gis suñ bopp ñun ñu ngi mel ne dañoo opposé wu suñ bi boo fi ñëwee da nga yaakaar ay opposant lañ en tant ñu ànd ak état ñu ànd ak état waroon nañ quartier bi waroon naa mën a gën a naat nii waroon naa mën a gën a développé nii man nag li may li ma bëgg nii xëy na li ma li ma xalaat daal man pour man président Macky Sall bu fekkee dafa soxla askan wi damaa bëgg mu ubbi bëtam xool ñu ko bëgg xool nit ñu am importance ñi te bàyyi ñu nekk ci réseaux sociaux yi nga xam ne seen saag lañ am ak seen dàll ak seen làmmiñ te xool ñu mel ne man Anta Sarr mi ca Touba Lan Sarr am base politique am nit ñu sincère yor carte électeur di wate te fu ñu leen jëmale ñu jëm fa mu wax ak ñoom dafa jot nag président Macky Sall jël bëtam wax ak ñoom.